maa ngi lay fay bu baax ñoo ngi sant yàlla bu baax hmm. hmm. waaw di sant yàlla bi ñaan fa mu tëdd yàlla yàlla yaatal bàmmeelam moo kum fa fekk ak ko fa fekk ci jiital nag suma wéjur bu góor ak bépp wéjur bu fa nekk bépp wéjur bu ne foofu rek ñu ngi ñaan suñu yërëm la te yàlla jéggal la ndax munu ñu fàtte tam ñu ñenn ci ñun am na ñoo xam ne suñuy wéjur ña nga bari saax te ñaan gi ci ñoom lay njëkkee wàcc ci ñi nga xam ne moom mooy mama jaaga mama jaaga nag nit koo xam ne ñi ngi ñaan daal yàlla gën a yaatal bàmmeelam yàlla yéesi nital ci kaw nit la woon koo xam ne nit ku mënoon partager la nit ku bëggoon xam ne ku bëggoon alquran la ku bari woon sutura la kon bu yàlla defee tey initiative bi wàcc jóge ci doomam Wally set ñu waxtaan ci ak ñun ñu koy defal tey xam naa ne Mama Diaga fa mu tëdd tey jort naa ne xool ba sedd na ndax amul doon mu ko gën a dimbali jaamu yàlla ci kaw suuf gis nga noonu paay ñi ngi wàcc kaamil ci biir jàkka yi buñ fi jógee kenn ku ne xam ne Mama Diaga ak social daana dem ci hôpital yi di jàppale nit ñi ci ñàkkam bu buñ fi jóge ginnaaw buñ fi ak buñ boolee saraxu ceeb ba pare jël nañ ay ceeb boole ci xaalis pour di ko jox jaamu yàlla yi nga xam ne dañuy toog di am jafe-jafe lu lekk loolu xam naa ci dara ndax ku ñu xam-xam na aspect social yaakaar naa ne li naan Fadel xam na fii nekk kon xam naa ne loolu ñu ci réew mi ñu ñaan ku ci wërsëg nekk rek ñu jox la ci nga dem toggal sa njaboot ñu lekk ko sa jàmm gis euh, waaw loolu moo lay wan ni artiste bi mënta dem sans presse bi presse bi mënta dem sans artiste bi presse en ligne wala nag dafa teel a comprendre presse en ligne ba amoon ñun ay relation yu rafet comme ni ko ñun amee ba tax ni loolu bi mu ko xalaatee ñu ànd ceeg moom fas ci liggéey parce que defuñu ko waale suñu bopp lañ koy defal ndax a Diallo dafa jur waale rek mais ñun ñëpp suñu way jur la ndax kenn ku nekk amoon ko cofeel ci moom kenn ku nekk ëmbaloon ko ko yërmande ngir ni meloon ci jaamu yàlla yi luñ ko baax diñ ko bëgg particulièrement nag Wally Seck nga xam ne ubbil na presse en ligne bi ay buntam rawatina nag les jeunes nga xam ne ñun ñoo ci nekk di liggéey ak ñoom fu ne ñu bu gëstoo gis ñu kon buñ ko jàll jee initiative bi génn ci moom ñu rafetlu ko moo tax ñaar ñu bokk bëgg-bëgg pour ñu waxtaan ba déggoo du jafe loola waral tey ñu ngi wàcce kaamil bi buñ paree dinañ jël li nga xam ne moom mooy saaf muy ay ceeb li muy àndal sarax jaamu yàlla yi xam ne seen loxo jot seen ginnaaw buñ ci jógee nag waaw dem ci hôpital yi ñun ñu xam xam ne ñun aspect social xool ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu am problème ordonnance ñu xool ñu leen ci dimbilee ak ñu am ay problème analyse ñu xool ñu leen ci jàppale ak ñi nga xam ne am nañ problème mu lu mu lekk ndax léeg-léeg nga dem ci hôpital gis fa kur hospitalisé mu jóge fu sori da am problème lu mu lekk kooku nga jël nga ci li nga xam ne mooy xéewal gi jox ko ci ñaan la te euh, ñaan moom ñaan la rek ñu ngi ñaan daal lépp liñ ci sàkk mooy yërmande yàlla mooy njëggalug yàlla yàlla na fekk bépp néewu jullit mu tëdd moment jaaga yoof ak bépp néew jullit nekk rek muy Touba muy Njaare muy Tiwaawan fii la fu néew nekk rek yàlla yërëm na te jë dekadi kitaabu rabbi kaani bi wa kuntu mhm. wa bihi lahu wa lillahi sakan kon daal mhm. yàlla yàlla nangul leen amiin papa amiin yàlla mën na leen defal fii waxta lana kulla babin kunta faatihu lisamin xayrati yàlla mën na ko def wallaahi wallaahi ci barke alquran bi ah, wallaahi wallaahi wallaahi nag ku koy am mooy ki nga xam ne topp na yoon bi gaa yu baax yi toppoon asiru maa mm-hmm. al abrar lakin al abrar lakin naim loolu nag kenn rek moo koy am duuba li mm-hmm. abdin muridin sadiqin lahumu mm-hmm. bi xidmatin aw bi hubbin aw bi hadiya kon góorgóor leen fa kullu man tabaadara waqta sigari ila al huda istiraha waqtal kibar te aduna bi fu mu nekk lu mu lëndëm lëndëmee mhm. su ngeen bëggee mucc mhm. mooy laa tasari dunia ukraka yaa ndax man ba anuuran biddu jaafa sa li yëpp nag mu ngi ci aduna bi kon ku yàlla ommet yóbbu ci diine mhm. na góorgóorlu jërëjëf góorgóorlu leen jërëjëf imam dégg nga jërëjëf góorgóorlu jërëjëf imaam kontaan nañu. ah yow ñun ñoo bokk kàddu gi. jërëjëf jërëjëf. yow kooku da cee baax kay waaye gars yi sama kanam la ñuy taxaw. moo ko bokk jërëjëf kontaan nañu. jërëjëf kontaan nañu. Thank you.

عذابا قريبا يوم يرجو المرء الجزاء ومن تبلغ الرادفة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي ذكرة واحدة كالله السائرة التي حديث أثير comme du ma teekatu micro moo tax damay su ma gisee micro damay tiit du ma teekatu micro su ma gisee micro damay tiit du ma teekatu micro su ma gisee micro damay tiit. eh bàyyi fàll maa ngi lay bëggee sant ko tedd